en attendant euh, ñu euh, fàttali leen ni euh, crise bi mu tàmbalee daanaka yu bëri lañu ñu arrêté woon ci ay programme bokk na ci wàllu sport day démb la ñu yëg ni fédération sénégalaise bu football moom sax décidé na jeexitalu saison bi donc ak aucun titre n'a été décerné cette année Mamadou Ndiaye. effectivement Pape fédération sénégalaise bu football daal di def. ëllëgu footballu Sénégal di xool ba xam ndax championnat bi dinañ ko yeggalem démb nag ñoom euh, waa fédération bi ki ko jiite di euh, Augustin Senghor moom euh, comité bi nga xamante ni moom lañ jox ñu xalaat ci ëllëgu footballu Sénégal bi def nañu réunion ba jël yenn décision yu am solo yi nga xamante ni jàpp nañ ni ñoom ci waa fédération bi ni ko xalaate moo nekk décision bi ëpp gën a am solo fii ñu jëm ak Covid bi nga xamante ni moo lëmbee àddina actuellement Sénégal tamit nekk ci wax nañ ko sànq ne ba léegi mi ngi am ay cas lii di fédération bi joxuñu nag tiitre champion bi kenn ci club yi nga xamante ni ñoo nekk ci championnat bi doon ko xëccoo euh, di xalaat Tëngéej FC mi nga xam ne ba bi ñuy arrêté championnat bi moom moo jiite woon raw euh, yeneen euh, club yi raw leen sax ak ay point yu xaw a takku tuuti waa Tëngéej FC nag joxuñu leen tiitre bi waaye jàpp nañ ni kenn jëlul pee kenn jëlul ndàdde kenn yéegul kenn wàccul. am na club yi nga xamante ni dañ leen jàppoon ne ñoom ñoo jël ndaare dañ leen di wàcc ñoom dañ leen daal di maintenir euh, ci li nga xamante ni mooy titre champion donc daal euh, championnat bi dafa nul euh, comme ni mu amee woon ci benn année bi nga xamante ni mën nañu ko jàppale gendarme même situation la woon te nii décision yi lañ jëloon beneen décision bi maanaam euh, li nga xamante ni jël nañ ko mooy euh, ñi nga xam ne ñoo représenté ñoo fas yéene représenté Sénégal ci euh, compétition africaine yi dañu jàpp ni Tëngéej FC lay doon ak ñi nga xamante ni ñooy waa Jaraaf ñu respecté première bi ak deuxième bi mais titre champion bi joxuñu ko kenn leneen lii nga xamante ne mooy démarrage championnat bii ñu jëm ci at mii ñu jëm ci 2021 ñu ngi ko jàpp le 31 octobre bi nga xamante ni ci la ñu nekk fii la ñuy fas yéene ubbi waat nekk nar a muy championnat année 2021 leneen yi nga xamante ni aussi ñoo ciy nekk muy championnat Ligue 1 national Ligue ñoom ñëpp dañ leen fas yéene subventionné maanaam jàppandal leen ngir ñu mën a dooleel financièrement am ay koppar yi nga xam ne dina leen dina leen permettre ñu mën a ñu mën a euh, jouer seen i match wala ñu mën a organiser wu wu ci mel ni euh, club Ligue yi jox nañ leen lu tollook 15 millions de francs CFA loolu lañ leen fas yéene jox club euh, Ligue 2 yi ñu fas yéene jox 10 millions de francs CFA club yi nga xamante ni ñoo nekk national ñu fas yéene ku ci nekk ñu jox la 700 000 francs CFA club national 2 yi ñu fas yéene jox ku ci nekk am 3 millions de francs CFA loolu la décision bi nga xamante ne waa fédération jël nañ ko 7 millions c'est ça. 7 millions moom ñoom la ñu jox euh, ñii di waa club national 1 yi. Euh, national de ñu jox leen ku ci nekk am 3 euh, millions de francs fa leneen li nga xam ne jàpp nañ ko mooy comme information mooy club dakkal nañ championnat bi amul benn club bi nga xam ne dañu jiiteel ni moom la ñu jox titre champion bi ñi nga xamante ne nag yenn critiques yi lool la ñuy def nee nañ mënoon nañu jox ñii di waa Tëngéej titre championnat bi ndaxte ñoom ñoo jiitu woon te euh, mën nañ jàpp ni li ci desoon ci ay journée bariwul waaye euh, beneen phase bi moo ci desoon maanaam desoon na lu mat treize journée te dañu gis leen ni ñoom jiitu woon ba pare te bu ñu yeggale woon xanaan football nag lu ne mën na ci xew euh, na ngir fas fas yéene jël li nga xam ne mooy titre champion bi waaye waa fédération décidé wuñu loolu dañu décidé ni ki nga xamante ni aussi mooy championnat bi dañ koy waaye du kenn du jiitu maanaam kenn jëlul titre champion bi te loolu nekk na lu am solo <coughs> Euh, li nga xam ne ni euh, moom la ñu yëg euh, mu jógee ci fédération sénégalaise de football merci.